asalaamaaleykum naa ne ko ma kafe de ñu ngi lay ñaanal bu baax ñu ngi lay ñaanal suñu Cheikh Sarr Baye Fall ñu ngi lay ñaanal Cheikh kon mbokki taalibe yi ñu ngi fii ci ngont sëñ Abdoulaye borom dër bi euh, talaata bu njëkk ci weer yi fii ci bërëb bi ñu koy euh, taxaw ànd ko ba amul xam gi yëpp suñ leen daal Moustapha Diagne maanaam sëriñ Sëñ bi Diouf mbokki taalibe yëpp sëriñ Malick Mafatim Bisri sëriñ euh, faal ñëpp rek ñu ak fii ci bërëb bi al talaata ah, eh, talaata bu njëkk ci weer yi rek incha allah fii ci bërëb bi macha allah noonu lañ ko amalee ci bërëb bu doomi Sëriñ Tuubaa yëpp ak eh, maanaam eh, kilifa yi nga xam ne dañoo nekk yoon wut yëpp waaw ah, sëñ Omar ñu lay siyaare baax Omar waaw fan ngeen ko waaw ah, sëriñ Modou tukkatul mota ak ñu koy mbokk bi yëpp waaw sëriñ sëriñ euh, euh, Malick Diouf communication moom sëriñ sëriñ Madiaye bëgg nañ ci yéen de bëgg nañ ci yéen bu baax a baax macha allah yàlla na sëriñ Abdoulaye bés ñun barke ba mu tax xase yi